waaye ñu lëkkale ko it euh, ak euh, taxaw seetlu euh, ci askan wi sociologue bi di Jibi Jaxate sama seexu màkk la ma am mbégte lool dalal ko ci plateau bi ñu gëj a gise depuis màkk waaw <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ bi maa ngi kontaan lool di la gisaat c'est vrai que màkk la màkk la ñu mujj gisee <laughs> di ziar ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ci plateau bi Charles Pape Djibril Papis ak Bouba di ziar aussi mbokku téléspectateur jàkkaarloo di ziar waa Sénégal yépp di ñaan yàlla yàlla def sécurité def mm-hmm. jàmm. ci réew mi ak amiin amiin moom lool loolooy sababu waxtaan wi ndax gis nañ ni euh, fan yi mujj dafa takkarnaase ba jéggi dayoo moo tax ñu woo fi commissaire principal mu war a ñëw. Euh, laaj ak tontu dox suñu diggante mu leeral askan wi tamit euh, taxawaay wi nga xam ni autorité yi eh, namm nañ ko am ci wàll woowu Euh, commissaire Madjibou Leye ñu ngi lay nuyu. Abdou maa ngi lay maa lay fay. maa ah. maa ngi nuyu. Mm-hmm. sa waa ñi ma bokkal plateau bi yëpp. Charles professeur Djibril nga xam ne gëj nañ ko gëj naa ko gis depuis les mercredis de la police yi ñu doon def à l'école nationale de police nga ne c'était vraiment l'occasion pour les sommités de la corporation de débattre de sujets important sur la sécurité et sur la vie tout simplement. Mm-hmm. di nuyu yow Abdou di nuyu Bouba. di nuyu Papis di nuyu également sama voisin ji bi nga xam ne il est moi je suis de Fissel Mbadal hmm. donc euh, mbégte la ma voilà mbégte la loolu ma jàkkaarloog moom ci ci ci plateau bi. Euh, niroo bu euh, lay. <laughs> mel ni tenue. tenue police dëgg la. may ma ko may rouge bi rek xaw bu ma jaaw jaax. en tout cas lui il est à nag mm. ah, Thiadiaye mooy. ah, ah, ah. léegi bi. non non non. <laughs> kon yow ba ma la yónnee ne commissaire day ñëw da nga dem assorti tenue yi ndax sa mbokk la. Ah, sécurité dafa baax. moom <laughs> alors commissaire euh, li ñuy waxtaanee nii mooy sababu ñëw bi ñëpp xam nañ li xew concrètement yan réponse la autorité yi nar indi ci jamono ji fi ñu toll ci kaaraange mu nekk si cause ci askan wi. ndax rey yi bëri na donte xeet xeetu rey yu bokkul la mais ba léegi rek ci euh, jëf jooju la jëm grand banditisme baa ngi fi crime passionnel yaa ngi ci yeneen ak yeneen a ngi ci ban réponse euh, la police gendarmerie et peut-être euh, justice dinañ ci yegg ndax tamit sanction yi ñuy tegaate dissuasif yan tontu la autorité yi nar a indi dama lay dama lay remerciable Abdou ci question bi di la remercier également ci invitation bi di remercier aussi sama kilifa yi ma woolu yebal ma ci pour ma teewal leen ci émission bi je pense que pour régler problème bi il faut d'abord ñu cerner ko c'est important il faut ñu def la cartographie de la situation criminologique au Sénégal pour ñu def ko y a beaucoup de facteurs centrifuges yoo xam ne dafay mbokk ñëw en ligne de compte Sénégal position géographique bi mu am dafa tax mu nekk benn genre ru ëpp e à de vue ci buntu géej gi la ñu nekk c'est la porte de l'Afrique te bunt la boo xam ne c'est un havre de paix également parce que on est entouré par une ceinture de feu boo xoolee un peu euh, la géopolitique sous-régionale euh, xool également la géostratégie ci yenn domaines yi xool également euh, euh, ferñeent yi fi jot a feeñ on parle de pétrole on parle de gaz ak publicité bi ci am côté presse nga xam ne un parle de milliards de barils de et yooyu dafay dafay dafay joxe benn gañaaru appétit rax ci dolli nag euh, ñu bokk ci benn euh, kuréel bu ñuy wax CEDEAO bokk ci beneen bu ko gën a ndaw muy UEMOA te yooyu yëpp am une garantie réelle de circulation de personnes des biens yooyu yëpp bu amee dafay ba pare nag ñu vivre ci benn territoire boo xam ne je ne sais pas Dakar ñaata pour pour cent la du territoire par rapport au reste du territoire national euh, dama koy bàyyi ak Charles nga xam ne xam na 0,3. nga gis ne à Dakar mais mais ñi kat way 25 pour cent de la population. mu leer na ni promiscuité bi fi am. crime passionnel yi ngay wax dara warul ko dul loolu. ak également population yi en plus. attente bi ñuy am ci police gendarmerie yi les forces de défense et de sécurité population yi lan mooy seen contribution à l'effort de sécurité parce que Abdou jegewuñu sax les ratios les par rapport au standard international police recruté la bu baax a baax a baax j'imagine également que gendarmerie en a fait de même mais ba tey c'est une goutte dans la mer parce que tout simplement euh, euh, euh, politique sécuritaire bi nga xam ne moom la ñu sas suñu bopp mooy additionnels yi koy accompagner ak personnel bi nga xam ne moo koy accompagner ñu ngi ci béy suñu waar nguur ñu ciy dimbali bu baax a baax a baax mais il faut ñu poursuivre ko sur des années encore pour pouvoir attendre les ces ratios là tant que atteindre ñu ces ratios la du sotti maintenant ci euh, euh, euh, séquence temporelle boobu ñu nekk nga xam ne atteindre guñ ko lan mooy contribution population yi parce que généralement dañuy attendre lépp ci police mais da gis koo xam ne par exemple am Mbour am na ci même à Dakar xale bu ñu jël yóbbu ko làqu ko quelque part à deux ans bu judd 2017 égorgé ko xam nga kooku lan mooy yaayam bu jëloon au le minimum de de surveillance day ko ci njabootam est-ce que dina mën a génn ba nit di ko fëkk di ko yóbbu di ko rendi am na Mbour am na dakaar Euh, ak sax léegi nag euh, autorap bi nga xam ne dafa xew léegi maanaam xëy créer sa benn euh, rap ne dañ ma dañ dañ ma dañ ma dañ ma dañ ma këf dañ ma yóbbu dañ ma dañ ma tëddee et cetera fekk sa copain nga àndaloon wala dara j'en parle parce que am na dakaar mais am na aussi am na Touba mais am na aussi Mbour le cas de Touba c'était ça mais am na aussi Mbour amoon na fa presse bi jotu ci ça a été élucidé mais man bi tantay ndaw si ñëwee ne ma sama jarbaat et la saison dañ ko yóbbu woo na woo na ma ne dañ ko kidnappé trois personnes ñoo ko tëddee dama ko ne amul fu mu nekk ma fa bàyyi boppam boobu dafa benn dafa tax ci enquête bi am ay facteurs yu ma sukkandiku pour mën ko wax loolu. effectivement bi mu ñëwee le lendemain noonu exactement la demee. teewul wax na ay waxam mais bi ñu convoqué bi ñu defee enquête bi poursuivre enquête bi xool ces euh, relevés d' appel exploiter le journal d' appel on s' est rendu compte que kër copain la nekkoon à Dakar. copain bi papa ji sax mu ñu tontu papa ji ne ma kii nekk yaayu copain bi sax laa ko mu ñu fanaanal parce que xale bu am 16 ans xamul nu muy seetee aw faram donc pour wax leen am na yoo xam ne moom euh, c'est vrai mm, presse bi nag duñ ko mën a wax lépp aussi parce que parfois enquête dafay laaj benn pour pour pour l'intégrité de l'enquête et sa crédibilité et par rapport aux obligations légales qui pèsent sur nous euh, mënoo communiquer ci yenn dossiers yi loolu mooy waral surtout parfois euh, une certaine presse pas toute la presse di am benn gis-gis bi or gis-gis bi mën na uute parfois ak li nga xam ne mooy mooy la réalité mais ce qu'il faut simplement savoir c'est que police par rapport aux solutions police dafa am d'abord une politique globale de sécurité on a une politique de sécurité au Sénégal cette politique la est déroulée d'abord elle est validée par les autorités ensuite elle est déroulée par les acteurs que Euh, politique sécurité boobu moo tax boo xoolee à dakaar pour rek jox la exemple Dakar mën naa la jox exemple Mbour mais je suis le commissaire central de Mbour mais Mbour indi ma fi tey je parle de de tout Sénégal euh, boo xoolee Dakar li fi nekk ci ay alkaati check point yi sans compter hirondelle yi sans compter les brigades de recherche les de recherche yi nga xam ne hirondelle bàyyil ma wax ni sans compter les les brigades de recherche hirondelle yi mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañ leen di teg bërëb bu dara amee ñu ñu ñu ñu gicler rapidement dem régler ko dellusiwaat ci bërëb bi euh, am na ci ay motard am na aussi ci ay ay ay ay véhicules yoo xam ne ay ay ay ay ay yu ndaw la yu ñu am yoo xam ne sa san yooyu rek loolu rek mooy seen liggéey euh, ñooñu ils viennent c'est des unités d'appui ah, à certaines de nos à certains à un certain dispositif qui est déjà mis en place les grands carrefours à Dakar sont occupés euh, léegi rek bi may ñëw romb naa ci benn Euh, noonu lay demee jusqu'à des heures de, de, crime boo demee dans la banlieue également c'est la même chose sans compter maintenant euh, programme de maillage sécuritaire bi ñu am ak euh, Guédiawaye euh, on a def nañu le cinq bi passé benn réunion de coordination avec le directeur de la sécurité publique ak tous les commissaires centraux spéciaux et, urbains pour dégager déjà def un diagnostic des lieux Euh, évaluer euh, l'état de nos moyens, l'état de nos matériels et nos besoins dans une perspective plus ou moins réduite, euh, dans, dans délai plus ou moins réduit. Bi ñu ko defee on s'est rendu compte que am na ci dans la banlieue dakaroise le commissaire central de Guédiawaye par exemple mi ngi mi ngi wax satisfaction ci commissariat yi ñu war a ubbi dans son secteur. am na ñetti commissariat yi ñu war ubbi dans son secteur compte tenu de moins personnel ci personnel bi ñu bi bi ñu am dafa créer benn surpeuplement boo xam ne c'est extrêmement intéressant par rapport à nos à nos à nos à notre mobilité. par rapport également à. Ah, ah, ah. que doy na non doyul du du doy parce que dama damay wax te tant que mënuñu. am policier benn policier ci derrière chaque population rek loolu du doy te defe naa ne euh, ratio yooyu bu ko même États-Unis amaguñu ko alors euh, professeur pour ñu mën a dem ci chronique bi ñu wax nuñ ko gisee ban jàngat nga mën a indi ci problématique bi waaw euh, maa ngi maa ngi remercier bu baax euh, commissaire ci intervention bu claire bi nga xam ni def na ko vraiment je crois une bonne maîtrise du domaine euh, dafa am benn aspect ou ñaari aspect yu nga xam ni rek peut-être bëgg naa ci wax un mooy problème mu sécurité problème mu société yëpp la donc loolu il faut ñu xam ne société boo xam ni zéro violence tout se passe très bien idéal la donc c'est un problème qui se pose dans toutes les sociétés deuxièmement sécurité dafa nekk lu nga xam ni bu fekkee ni réglé woo ko aussi tamit société bi munul def benn pas en avant ci domaine yëpp moo xam politique la moo xam économie la moo xam donc c'est élément bu fondamental la pour société yëpp loolu moom d'accord nañ ci troisième élément bi nga xam ni commissaire wax na ko nee na famille yi euh, quelque part mm-hmm. xale bi nga xam ni euh, surveillance bi nga xam ni famille bi waroon na ko def surveillance boobu xaw a am lu mu sooxee ba indi jëya xale boo xam ni dañ koo faat yu deme noonu loolu aussi Euh, xam naa ni nañ ci taxaw seetlu que famille yi am nañu responsabilité bu am solo ci rôle bi nga xam ni moom la ñuy war a jouer protéger nit ñi mais tamit def ci nit ñi loo xam ni bu ñu génnee yenn comportement yi duñ ko am. donc je crois que c'est important loolu ci famille bi ngay ak acquérir yenn valeur yeeg yooyu nga xam ni daf lay waajal bi nga xam ni moom moo ci moom moo ci des moom mooy les population et la police foofu aussi li ma gis mooy. Euh, sécurité il faut que population yi dugal ci seen loxo loolu je crois que c'est excessivement important nekkul loo xam ni même bu fekkoon ne benn policier bu ginnaaw popul nit bu ne am na policier bu ci nekk population yi bu ñu collaboré wul ça va être difficile que ñi le euh, le les les agents de sécurité défense mën a réaliser ñoom li ñu bëgg yëpp loolu lu muy tekki mooy je crois il faut ñu am une approche systémique et collaborative de la sécurité li ma bëgg a wax foofu mooy euh, sécurité dafa dafa xam nga nit koo gis. dañ ko mooñaale benn partie boo xam ni daf koy pousser muy dem vers la violence nit boo gis dañ ko dañ ko mooñaale loolu. xam ni bàyyi ma la ci moom mais heureusement dafa am beneen parti boo xam ni. Euh, à la la mooy parti bi nga xam ni moom la ñu yar moom la ñu def ci moom jikko yi ñu def ci moom demee noonu parti boobu bu ci benn xawee sooxe moo xam ci mbirum koom la moo xam ci mbirum soxla yëngatu la moo xam ci mbirum li ñuy tuddee ñun inversion sociale xam nga nit yenn trop plein dafay soxla dem seetaani boxe wala mu am sport wala mu am et cetera pour exprimer yenn affaire mm-hmm. donc lu ci sooxe rek gisoo bu njëkk ba dañ doon def ay xaxar nit ñi génn wax ñu mm-hmm. ñu permettre nga wax lu la neex mais bu ñu paree ci loolu pare nañ ci loolu ay ay moment d'inversion sociale la pour génnee benn énergie parce que xam nañu nit dafa am lenn loo xam ne dafay exprimer wu loolu nag Euh, pour nga mën koo gérer il faut que mu am une approche il faut ñu il faut que sécurité population yi ñu xaw leen a intégré population yi gën a ñeme ak gën a jege les policiers et les gendarmes gën leen a ñeme gën leen a jege question boobu dama ciy taxaw souvent ci question par exemple accueil dans les commissariats et dans les brigades accueil nit ki ñëw ñu dalal ko mu dal ñeme ñeme dem wax ak ñoom je sais que effectivement. c'est un vrai problème. Euh, mais ñi ngi ciy def ay ñi ngi ciy ñi ngi ciy def ay efforts. mais bien sûr. on on pas le contraire. Mhm. mais ni nga wax je pense que war nañ ci insister trop. absolument pour nit ñi sentir ni ñoom lañ fi nekkal. Mhm. Euh, am na. se war nañ ko gën a yokk. absolument alors man fi ma bëggoon wax est que yomb na tamit askan woowu nga xam ni wax na ko lu bëri que junj ne war na ci bokk. maanaam boole laa ko mën woowee ñuy boole ñiy def ñaawteef ndax yomb na ci askan wi. waaw léegi xam nga boole boo ko déggee mooy nga dem ci koo xam ni bokk ci nga dem di ko jaxase loolu mooy problème. Mm. mais bu ci bokkee. Mm. maanaam yow nga nekk ci kër gi. Mm. yow ñu bokk lépp ci biir kër gi ma dem wax diw c'est acceptable xam nga fan la acceptable fu ma mele ni dama def trahison. dafa fekk nag boobu force bi dafa xaw a dafa mel ni lu extérieur xaw ba xam-xam nga fi may bëgg a waxee mm-hmm. bu boobaa boo fa demee di wax dafay mel ni da ngaa boole boole boobu moo am problème moo tax ma ni bu fekkee ni bokk nañu approche collaborative laa wax mm-hmm. donc bokk nañu mbir mi dafay laaj nag ay waxtaan mm-hmm. dafa laaj euh, jaxasoo dafa laaj boole ci nit ñi ci mbir yi ni ñu koy doxalee ñu comprendre ko ba ñoom ñu nangu cee dugal seen ko gën a ñeme ni lii ci ñun la bokk que man ma dem ci commissaire bi wax ak moom ma dem ci agent de police bi wax ak moom dafa mel ni maa ngi wax ak kenn ki nga xam ni ñoo bokk club de thé et cetera donc mu diggante bi gën a ratax ba nit ñi di parce que loolu mooy indi prévention loolu mooy indi euh, parce que en matière de sécurité aussi prévention daf am solo bu bu fekkee ni mbir mi dafa am ba pare ngay dabu dafay xaw a compliqué mm-hmm. mais comme lii raam bu ñu ko teelee gis wax ko ñu daal di taxaw balaa muy yegg ca ñag ba loolu moom mooy gën moom mooy prévention